Thank you. Alors, euh, euh, merci beaucoup de nous donner euh, l'occasion de pouvoir nous exprimer. Nous avons expérimenté cette année euh, les journées avec des panels, des ateliers. Euh, d'habitude, le format habituel, c'est des journées portes ouvertes avec des consultations avec le public. Nous avons pensé que, avec les questions d'actualité, il était nécessaire de, de faire des échanges avec des spécialistes de tous ces domaines pour euh, pouvoir euh, mieux appréhender les questions que nous devons aborder dans les actes que nous proposons à nos, aux investisseurs en, en, en grande partie. Puisque, comme vous le savez, le thème de cette année, c'était le notaire et l'environnement des affaires. Les affaires, le monde des affaires bouge et nous devons bouger avec. Donc c'était ça le but. Nous avons eu des échanges passionnants avec tous les débatteurs. Nous avons eu des panélistes de qualité et vraiment, vraiment, c'est une expérience que nous ne manquerons pas de renouveler, Inch'Allah. Ça a été très, fructueux et bénéfique pour nous tous. Également, vous avez reçu des chambres qui euh, à fait. à ces Nous avons eu le bonheur d'accueillir euh, le président de la Commission des affaires africaines euh, qui nous a reçus il y a une semaine euh, au Bénin, euh, lors du Conseil général. de l'Union du Notariat euh, International. Donc il nous a fait l'honneur d'être présent à ces travaux. Et nous avons eu également la présence d'une délégation ma marocaine avec à sa tête le président Hicham Saberi du, du de des, euh, Conseil de l'Ordre des Notaires marocains, accompagné d'un membre de la conservation foncière et également d'un membre de la Caisse des dépôts et gestion qui est le pendant de la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons été très honorés d'avoir ces, ces hôtes de marque. ces ces invités de marque merci beaucoup. Euh, ren moom dañu choisir changer tuuti format bi parce que dañuy daan def ay journée portes ouvertes euh, ñi ma jiitu ñëpp ak euh, nu mu tudd at bu nekk pratiquement sauf évidemment période Covid dañu daan jéem a def ay portes ouvertes mais ren ak affaire yi ni monde affaire yi nu muy bouger on a senti la nécessité de changer un peu de format maanaam def ko non plus ay journées ouvertes portes ouvertes mais ngi def ay panels. ay atelier di échanger ñi nga xam ne seen seen xam-xam màcc na ci secteur yi nga xam ne moom lañ soxla woon e wax dëgg yàlla euh, échange yi ñu am vraiment euh, baaxoon na trop euh, amoon nañ ay panélistes de qualité échange yi vraiment macha allah et yaakaar naa ne dina am njaxital si suñu liggéey. ngeen am mhm. mhm. waaw effectivement euh, président commission affaires africaines de l'union euh, internationale du notariat mu ngi fi woon euh, euh, semaine passé rek ñu ngi woon ak moom Bénin mu recevoir ñu ci cadre conseil général de l'union du euh, internationale du notariat wax dëgg yàlla ñu koy rafetlu torop. malgré ni mu metti woon parce que dimanche la ñu pare euh, jël na avion ñëw fekk si ñu vraiment ñu ko ciy sant ñu ko ci gërëm di ko ci sant ñu amoon tamit benn délégation marocaine boo xam ne euh, ki ñu naan Hicham Sabiri moo ko jiite ànd ak benn euh, représentant wu conservation foncière ak benn représentant caisse de dépôt et gestion muy pendant wu caisse de dépôt et consignation vraiment ñuy rafetlu teewaay yooyu yëpp. Euh, di leen ci gërëm di leen ci sant euh, te xam ne am na apport bu mag si ñun parce que ay échange la woon ku si nekk si ñoom apporter li nga xam ne moom la ñuy def seen dëkk ñu war ci mën a euh, jël exemple wala en tout cas jël ci li nga xam ne dinañu mën a jëriñ